السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيننا فأفرد الوجهة إليه وقطع النظر عما سواه وارضوا بقضائه تستكمل الراحة في الدارين والناس عند التحقيق مدحهم وقدحهم سواء فالله أعلم بها لعبده وكفى بالله شهيدا بيننا ننجن ويتل سين جبلواي جمتي يالا ننجن دق سين قول جمتي لنين لدود يالا na ngeen gërëm ate yàlla yi ak i dogalam ndax ngeen mën a am noflaay gu mat sëkk ci àdduna ak àllaaxira nit ñi nag boo ko seetee ba seet ko sa dëgg-dëgg seen ak tagg ak seen ak ŋàññi ñoo yem keppu seen merci ak seen merdu ñoo keppu yàlla daal mooy ki gën a xam xaalu jaam bi te yàlla moomee doy na seede radiallahu anhu wa nafaana bi axukum fillah ibrahima jim jaam ar